asalaamaaleykum euh, wa Sénégal Actu TV mbégte ak banex lay am delu si ak yéen ci sen euh, édition spéciale ñu jagleel ko rek walum euh, actualité Euh ñu fassiyene waxtan ci li nga xamanteni mom moy Ciowli. Ciowli Ciowli nak li la moy Ousmane Sonko ak Adji Sar. waaye nak dafa am yeneen njeexital yi nga xamanteni mom lañu fi nemmeeku jamono ji. actualité nak nag gëna xam li nga xamanteni mom moy euh gànnaay yi nga xamante ni gis nañ ko fële ca université dimanche bi ñu weesu ak nag li nga xamante ni tamit mooy euh, arrestation yi mu nekk loo xam ne aussi benn bu si nekk dañ koy ñëw développé rek wax si suñu xalaat euh, bu njëkk nag moom mooy euh, coowal ngàndaay yi ku ne université moom mooy temple du savoir béréb boo xamante fa la ñuy sàkkoo xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo censé jiite suñu réew ëllëg wala nekk ay gouverneur nekk ay magistrat fofu bërëb bobu la ñuy génnee bu fa génne tamit wu tamit fa la ñuy jaar kon fofu bërëb bobu sakku xam-xam moko ko tax a ndax rek kuñu ko tuddé di Cheikh Anta Diop professeur bu mag bi donc yaakaar naa ni euh ñu fa sax nek espace bo xamantene dañuy nangu ah politiciens ñoo fa di fa def lu leen neex motax kérok ba mu fa gisee ciow lolu moy walum ganna yi ah man de wax deug yalla téena sama xel tey na sama xel parce que pour man euh dañoo bëgg a gàkkal deru étudiants yi moo tax ñu gis fa gànnaay yooyu parce que en fait nit ñëpp dañuy seetlu euh, bu ñu xoolee gànnaay yi yu ci bari seen étiquette yu bees tàq mi ngi ci je pense que ni réalisateur bi dina ko bàyyi mu mu jàll comme ça ngeen gisandoor ko da ngay gis étiquette yi mi ngi ci gourdin aussi yëpp nekk même même modèle je pense que ni tey jii bu ñu ko doon wut wala ñu koy jënd étudiants yi bokkuñu fu ñu jugee bokkuñu ay bërëb yu ñu jugee donc je pense que ku nekk war ngaa mën a jënd ak sa façon mais tey même euh, même jaasi la ñu gis même armes yi ak seen bees ay tàq paaka yu bees tàq macha allah étiquette yeeg euh, gourdin yëpp nekk benn loolu moom moo si xaw a teey sama xel te je pense que ni aussi ba ñu demee bay filmer waroon nañ ko di wane ba ñuy génn si néeg yi du ko gis muy à parce que gis ci fu aduna tollu jamono ji ak ak nouvelle technologie lu ñuy def rek dafa a leer war nañ ko sous la supervision de la police man nak loolu mo ci té sama xel te bëgg explication ñun bu ñuy di analyser rek tax donc ndax dañu bëgg étudiants ndax dañu bëgg gakkal euh mbirum euh, politique bi nga xam mom lañuy wax ni mom mo làqu ci ciowal Ousmane Sonko bi ciblé étudiant Pastef yi lolu point d'interrogation la mais mon wax deug yalla ah gëmuma ni euh, lolu lepp ci biir néegu étudiants la génnee lolu nek premier point bu ñëw ci deuxième point bi euh ñun ne wax bëgg wax ci ciowal arrestation yi nga xamanteni amna muy walum Assane Diouf mom lañu ñu japp wax dëgg yàlla euh, lu ma ci xawa ñaawlu rek mooy brutalité bi ñuy xamante ne moom la ñu àndal dem di jëli Assane Diouf di dajj ay bunt loolu wax dëgg yàlla euh, dañu koy ñaawlu ndax moo def wala dafa def bokk ci complot bi loolu tamit beneen jàngat la laaj parce que kat suñu réew mii di Sénégal duñu nangu kenn ku ñu ko yàqal

Euh, bâtiment d'état yi nga aussi dañ koy jël di jaxat jaxate ta xam suñu xaliss lañ ko tabaxé fi luñ fi mëna def rek ñun ñoo ci parce que ñom ñuy jité dugg ñu ci kaar yi wuñu si l'hôpital yi nanu ci ndox bu ñuy donc ñun baadool ñu ñoo si lorule te bu ñuy patriote moy bëgg sa réew war ñoo yaq image du Sénégal

en 88 lañ bëgg indi wat nga xamante ñom ñoko ñoo ko daan orchestré ku nekk ce secteur nga fexé ba tal ko té jottu ñu benn information bi wane Ousmane Sonko dañ ko wara arrêter le mercredi ñu bëggona tal taal réew mi audio boo xamante ne ñëpp déglu nañ ko du ñàkk nag euh, réalisateur bi dina ko jéem duggal pour ñuko ko dégluwoon ñu profité ñu déglu ko mais lu ci mëna am rek moy ñun Sénégal moo ñu gënal lépp damay faral di wax na man combat yu may Nous avons wu ko pour Sénégal waaye pour sénégalais mais dama koy def pour Sénégal dañoo war a sàmm image Sénégal boobu kaara ar aar kaaraange population bi am na ñoo xamante seen loxo jotu seen ginnaaw dañoo góorgóorlu ba jënd ab sagaru oto manifestation ñëw ñu yàqal leen ko kuy perte ñoom am ñoo xam dañoo góorgóorlu bricoler dafar finition seen kër ba mu jekk manifestation ñëw ñu tojati ko kuy perte ñom amna ño xamantene jamono ji mi wax yam ñu ngi nek chômage technique parce que sen fuñ doon liggéeyee dañ kaa caxat-caxate yàq ko ñu wañi len ci liggéey bi ñun ño ci perte nañu xolaat ni ñuy liggéeyee nañu xolaat ni ñuy xeexee du nangu tamit gaay di foowee suñu rew duñu ñu ko nanguwaa ah. lepp lo gis rek dafa laaj bop bo bëggee xex dafa laaj bop coow li yëpp mënoon nañ ko éviter bés bu ngeen fàttali ko keroog ba ñuy fay ba ñuy fal Macky Sall le président Macky Sall il a marché sur 14 cadavres voire même 15 pour accéder au palais de la République ndaw yi amoon yaakaar ci moom jigéen yi amoon yaakaar ci moom mais tey ñu ci bari yaakaar gu tas mooy feeñ ci seen kanam. ñu ci lorule seen njaboot ñoo ñàkk seen waajur ñoo ñàkk ay ñëm Mamadou Diop ndem ci yàlla ñëm Malick Ba Abdoulaye Wade Yingo ak ñeneen ak ñeneen j'en passe ana ñoom tey seen njaboot ba ñu lu ñuy def ñoom ñoo jël akimoo lépp seen jege ñaale bu ñu lu ñuy séddale sax ci seen famille lay yem ñun loolu waruñoo mën a yee mettez des jeunes cadres Vous savez, à nous ñu commencé matagul sax un an di occuper de, hautes responsabilités mais ni ngi déféré vous Cap Manuel que vous poste des di xaar perte Amana sax ku doon xéxal tay bu falu won tamit euh, tas bu am ci Macky Sall la tamit.

conséquences yooyu yëpp ñu ngi ci te ki ngeen xeexal nee leen moom ak njabootam fas yéene ñoo wàcc di rey seen bopp nañu xoolaat seen joxalin nañu xoolaat suñuy comportement Sénégal bu fi Macky Sall jóge kenn mënu kenn mënul fexe ba du fi jóge de gré ou de force ku sa wàllu jeex da ngay dem donc amna lu bëri lo xamantene jaru ko fi Ñom ñepp yam politiciens bu ngeen bëggee dégg dëgg Ñom ñepp yam man gëmuma leen même da ngeen dem ba gis tay lo xamantene nguur gee ko war a séddale tout le temps da ngeen koy dégg ñu naan euh, seen militant lañ koy jox bu keneen togon tamit noonu lay def ay militant rek ku politikul da ngay torox da ngay sonn mais tey lu ñuy joxe yow doo ci am moo tax fas jom liggéey gëm sa bopp rek moo wóor leneen lu ñu leen mën a wax lu dul liggéey wóorul parce que Sénégal mooy fonctionner noonu demal États-Unis di wut liggéey dañ naan la loo mën a def nga ne lii laa mën ak lii ak lii ñu ne la demal liggéey lii ak demal def ko nga dem Europe dañ naan la yan diplôme nga am nga ni am naa diplôme bi am naa master bi am naa doctorat fii ak lii ñu responsabiliser nga dem liggéey mais Sénégal xamuñu loolu lépp.

loolu mooy ndaw bu gëm boppam man foofu laa bëgg di woo nit ñi mortin dinaa ko sax jël interview benn jour mu wax jaar-jaaram kooku exemple la pour ñun dafa war a nekk exemple si ñafe boppam ñafe ñafe di jaay gerte xott moo yooyu ñu naan def si pañe yi di ko jaay noonu la daan def tey mi ngi ni créé ngandum entreprise am macha allah di embauche ay tubaab ay naar ñëpp di ko liggéeyal. fofu la gëm sa bop di tambalé mais duñu taxaw bu manifestation amé ñi profité ci di régler sen règle ay def ay règlement de compte ñu né kat euh, France dégage kaa lañ xool lépp lu français am ñu yakati ko te français luñu am implanté ko fi ay doomu Sénégal ñoo ci liggéey te ñooñu fan lañ jëm fan lañu jëm lool nak ñu war si war a mën xel. ñoo bàyyi ay waruñoo bàyyi ay jàmbur gën ñoo bëgg suñu réew waruñoo nangu ku taal suñu réew surtout ñoo xamante ni wala surtout koo xam ne sa passé dañ ko xam deretu Babacar Seye bi ba léegi mi ngi ne fenneegul bu ñu waxee ñu ne woy dañ kaa yónni man ginaaru kenn nenu ma

donc man aw intérêt ci Ousmane Sonko mu ñu ñu ñu ñu taraxal ko ba lu ma ciy gañe aw ma lu ma ciy gañe munu ma ko bañ jullit du yéene moromam mukk lu bon tout le temps dama naa man suma ma sañoon dinañ ko déggé ci leneen wala ñu topé ko ci leneen lu dul lii lu dul amuñu intérêt pour diko ko bañ waaye tamit am nañu intérêt pour sàmm suñu image u réew am nañu intérêt pour sàmm suñu karangé rew loolu kase la loolu kase la parce que Ousmane Sonko intérêt moy fexé ba satal deram parce que tuumal viol ak tuumal satch loolu tant que fexé wo ba satal sa der doo musa dañ la koy musa xolé di la ko musa waxé damay jël exemple Idrissa Seck bañ ko tumalee walum chantier Thiès yi fexe na ba am non lieu total pour mën continuer de faire sa politique mais tay buñu né nee euh, war nañu session de recherche nangu woo dem assemblée nationale convoqué aussi nang wo dem est-ce que tay ji man bon bon personnellement la man bu woron man ñu tuumaal ma lu mel nonou dina fépp pour ñu ma woo dinaa wuju pour meuna taxaw setal sama der donté man personnellement gëmuma ni viol bi amna na gëmuma ko personnellement gëmuma ni menace de mort bi amna na gëmuma ko te momit geum na ni loolu amul mais na dem wax lu am na dem expliquer lu am xana ñàkkul fayda bañ ko bëgg japp jàpp ko ci lo xamantene yonam yoonam nekku ci dama nga wax li nga xamante ne moom am exactement du tey tey say militant ñu lay bëgg bu ñu doon fekk bu jël sangar ngay taxawal ci mbedd bi sax teew lañu lay bëgg parce que da nga leen won programme bo xamante ne doy na leen te nag lolu jëm nit ki wala lu muy def intéressé la ñom li ñu leen won proposer leen ko te mu yaakaar nañu mu dëggu ci yow ñom lolu lañ gëm lolu lañu topé ba fo yëkëté ne li la bëgg gaay yépp ju taxaw euh, doxo ko ba nga woté ñëpp génn

lu appelle appel à l'insurrection bi nga xamante ni say militants yu bari yoo xamante defeere nañ Ni ni ñii ñi garde à vue ni ñi ngi am retour de parquet loolu moom beneen enquête la peut-être dinañ fa yegg atteinte à la sûreté de l'État trouble à l'ordre public yooyu yeneen mbir la ba léegi waxaguñ mais dossier bi nga xamante ne moo waral coow lii gisuma loo xamante ne war nañ li si mën a loolu moom dama koy écarter mu amul mënul nek tamit mais waxal lu am waxal lu am loolu kese la buñ la bëggee tëj loo xamoon tëj boo xam jaarul yoon sénégalais yi yu jugal keroog lëndi boobu ñoom ñooy njëkk a taxaw ne lii du fi am ndax sénégalais bëggul injustice sénégalais bëggul ku ñuy néewal doole Macky Sall du ma bàyyi ma fen ba ñu ko bëggee toroxal en deux en 2008 ci APR ci euh, PDS ci la génn créé APR démissionné assemblée nationale. démissionné mairie Fatik, démissionné ci parti politique bi Du PDS ne Yalla Barna. Nous ñu teg ci un an 2009 Yalla def mu nek maire Fatik. ñu y ñew ci 2012 Yalla def mu nek président de la république ba tay ci 2012 bi moi majorité à l'Assemblée nationale du gouvernement nous connaissons, neex di xamni yalla rek mo fi ça. Moustapha Niass bañu ko bund PS 2000 dafa dem ñew jël troisième ci ginnaaw Abdou Diouf Abdoulaye Abdoulaye Abdou Diouf ñu deuxième tour Moustapha Niass jamono yoy mënul woon mënul woon nga ko ci waaye ku mu àndal nga falu Abdoulaye Wade comprendre loolu proposer ko poste premier ministre te lu jiitu loolu Djibo dem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm moom it ba ñu ko bund les PS 98 sa première participation Talla Sylla sax moo ko joxoon récépissé par thème jëf la clé du changement ñëpp koy fàttaliku ci la demee am 11 xaw 10 députés à l'Assemblée nationale pour sa première participation Mon nek lu musul am Idrissa Seck en 2007 cawo moobu yëpp dem mu jël deuxième ci ginnaaw Ablaye Wade ci kanamu PS loolu lepp day injustice Té lool nak moy continuer Mo da may faral wax nan coowal Ousmane Sonko bi. bu féké lu ñu koy tuumal lu am la filé lay fay mais bu dee dara du ci deug filé lay tak. moo tax ma naan ndam a ngi ci gàcce ngi ci ndam a ngi ci gàcce ngi ci te loolu napp pour ñu xam ci dara nag il faut que mu nangoo wuy ji gars yi laaj ko mu jàkkaarloo ay mu yu ànd ak ay ñu défendre ko loolu kase la loolu rek la du leneen gisuma lu fi jar euh, xaxarante bi

ginaaw bi Ousmane Sonko genn na wax mune enfin ki nga xam ne moom lañ jàpp ni mom mo jité li di complot bi tudd complot kon complot am na man de damay japp batay ni ak numa xamé luy définition complot complot amul complot kat moy Waji ji taxaw na nañ ko fexel nañu jël téléphone bi dugal ko ci poosam wala dugal ko ci saagam jéem a wër-wërlu après ñu jëm ci sone bu sone si saagam nag ñu xam ni moom la bu sone mu sone mu sone ci biir saagam ñëpp ne kon kii moo ko sàcc te yàlla mu ñu tim xam ne ni kooku jëlul dara dañ ko faa dugal pour man loolu mooy complot mais yow nga jug doxal sa bopp dem ba suite beauté di institut de nga maase wu fa taal sa oto dem. lu fa xew xew fa ndax lu fa xew moom wax deug yalla ñom ñu sekk ak yalla ñoo xam lu fa xew xew fa ciow lu judd si nga dañ ma complot ban instant le complot wara am ci mbir momu parce que man waxaguma après après moy ñeneen amna auto bu ñew jël si ko yóbbu am ay résultats mais man les faits li nga xamante ni moom mooy moom wax ni mom mo am fal la complot am ci mbir momu lool kese la. Ousmane Sonko loolu kese la l'école, la ko nit ñi euh, xawee Moi, tuuti mooy rek le fait que muy fréquenter milieu yooyu. Euh. mu toll ak lu ko yàlla may mbooloo bu ko dar ku waroon xam ñu muy fréquenter la ku na a xam ñu muy waxal téléphone la ku na a xam fu la Abdoulaye Wade wax na ko ko.

dossier bi mi ngi ci yoon nañu bàyyi dafa nekk rek loo xamante ne il fallait que ñu revenir si après nag lu ci xaw yëpp may wàllum complot bu ñuy wax lu ci waay def yàgg-yàgg dinañ ko gis ndaxte nag ni ñuy defee politique Sénégal dafa salte daan ngeen fi dégg jamono jamonoy puune yu ñaan daan suul daan ngeen fi dégg ñu daan complot di leen rey di jàlle njabootu Babacar Seye Ndiaga Diouf ak ñeneen ak ñeneen ay wàllum fétiche lépp rek mi ngi ci politique donc bu ñu demee ba xam ne Ousmane Sonko ndaw si da koy maase ci ginnaaw gi it parce que dafa am liggéey moo tax liggéey

kon amaana sax moom mu koy maase faram sax du xam ni moom mooy maase Ousmane Sonko mais nag boo demee dem dugg ci milieu yooyu nga xamante ni xale bu nekk dafay taxawaalu lu nekk nga fa yow nga xamante ni da yaakaar ni yow war ngaa war a mën a jiite Sénégal ëllëg ngay fréquenter milieu yooyu lu la fa dal yaa ko teg sa bopp lu la fa dal yaa ko teg sa bopp. moo tax man gamuma complot dañ ko war a yedd wax ko dëgg ne ko war a woon dem foofu loolu mooy yoon loolu mooy yon parce que man dama déglu benn ojo ndaw si si boppam muy proposer ay nit dina leen proposer sax aji mooy gérante bi kooku ay mbiram dara setu ci ay waxam dara leeru ci lu coow li tollu tey rek loxo ma ngi ci biir parce que ku dégg lu muy waxee sax day mel ni kuy jëm a justifié wu à tout le temps ndax rek incohérence yi nga xamante ni moom moo am si ces sur ces déclarations ces différentes déclarations dem leen ngeen déglu rek ci muy wax tàmbalee ko ci ci ni mu tuddoon tàmbalee ko lu taxoon Adji Sarr euh, mu dàqoon ko indiwaat ko dem leen ngeen déglu version yooyu yëpp ak 31 liggéeyoon na ak liggéeyul dam nañ ngeen dégloo lépp donc loxoom setu ci mbokk yi maa ngi jégalu baax nag di wax comme nu ma koy waxee rek saa su ne ñun ay nit kase lañu dañuy jaxe suñu xamaan xam-xam joxe suñu xalaat ci coow li lépp loo xam ne jub na ci nag ñu jàpp ne suñu borom la lu ci dëng nag ci ñun la ndax nit doomu aadama matul ñu ngi ciy jégalu. bu ñu waxee aussi des propos yoo xamante ni am na ñu mu offensé ñu ngi ciy jéggalu tamit di leen ñaanal jàmm di ñaan Sénégal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm feewar bi nekk fii tamit ñu ngi ñaan yàlla mu jóge ci àdduna bi jóge ci Sénégal jërë ngeen jëf wasalaam.